mom lay ñëwaat mooy daal di tënk ci kan mooy isbu isbu mbooloo la moo mi ngi en ci 76 76 suñu année universitaire la académique ci la judo waaye acte de naissance bi officiel. di kayit yi nga xam ne la xalif général des Mourides Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di troisième xalif ba mu ko signé mi ngi doon février 1976 bi nga xamante ne Hizbut Tarqiyyah créé wu na mi ngi créé wu ci biir campus universitaire ci biir université suñu mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon muy Sëñ Aatu ak ñi mu ko àndaloon doonoon nañ ñoo xamante ne bi euh, dañu am lu ñu yëg ci seen xol loo xam ne ku ko leeral war na ko mën a xam mooy xam nañ ne tubaab bi bi mu fi bàyyi un système éducatif sóoraalewul woon li ñuy wax l'assimilation des valeurs culturelles de base maanaam ñu fexe ba am éducation boo xamante ne day tax doon gi ñu doon jullit mu doon loo xam ne du réer jikko yu rafet yi du réer waaye ñoom dañ fi bàyyi au contraire benn politique d'assimilation culturelle loo xam ne sax boo ko toppee ci wàllum njàng mi diggante école yu ndaw yi ba ba ngay dem université <clears throat> da lay soppi ci say jikko soppi la ci saw melo ba da ngay doon ko xamne da ngay étranger à toi même dootoo xam sa bop lolu ñom nak yalla suñu borom ci ndimbalam bimu leen gindé ñom suñu mag ñoñu ñu wax ne li dé war nañu créer lu tax ñun lolu nga xamne ne kenn fàgguluñu ko ñun ñoko ko war suñu bop kon ñom ñu dajé ci biir université tax bobu ay étudiant lañu

donc dañu nekkoon di di di daje waaye kenn ku ne boo paree da ngay jóg dem ñibbi kon dafa soppiku nit ñi day yéex du gaaw loolu phénomène de civilisation suñ koy wax tant que institution boo xamante ne day marqué la permanence day doon lu sax tant que ko phénomène nga koy mën a tuddee donc transformation nit ñi du gaaw moo tax diggante 76 ba 81 loolu moom lay marqué. 81 nag point de fracture la boo xamante ne li muy jëkk a marqué mooy ci li ñu créé le premier siège en dehors du campus universitaire ndax université dafa am nu muy doxee noo xamante ne franchise universitaire yi ak ni ñu ko tëralee yow doo ñëw rek imposer sa doxin ne damay damay créer fii sama cadre doo fa nekk à l'aise ñoom ñu nekkoon ginnaaw ñun ñoo bëgg a soppiku ñoo bëgg a assimiler ay valeurs yoo xam ne bu ñu nekkee université njàng mi dañuy fexe ba matériel sart yi bañ a médiocre mais buñu démé tamit ci ci sunu sunu sunu su ci biir aduna ñu doon ñoo xamante ne ku ñu gis xam ne ay julit lañu ay nit ñu baax lañu ay nit ñu yiw lañu ci lañu créé à la SICAP le premier cadre mooy daara ji léegi nag dinaa tënk mooy cadre boobu bi ñu ko créé en 1981 diggante 81 ba 89 dox am na fi bu baax ndax boo xasee am daara rek activité yi day commencé am doon loo xam ne it day doon cadre de référence activité yi mooy boo bëggee jàng xam-xam ñëw jàng soo bëggee ñëw euh, euh, euh, jàng xasida ñëw jàng soo bëggee jàng alxuraan ñëw jàng ko soo bëggee tamit xam sa diine ñëw fekk koo xam ne day def cours magistral wala muy def prôle loolu doon loo xam ne mi ngi commencé soppi membre yi ko googu nag membre yi commencé soppiku na ngeen xam ne fu ngeen dégg bu Tarqiyyah mu àgg fa fondement yi foofu la tàmbalee ndax cadre boobu muy cadre de référence boobu moom li nga xam ne fa la activités yi di développé woo noo xamante ne ay activité la yoo xam ne benn système de valeur ci lay sukkandiku mooy jàngaleem Serigne Touba te jàngaleem Serigne Touba du lu mu sos l'islam rek la loolu kon ci tënk loolu moo indi diggante 1981 ba 1989 daara ji dox bi tàmbalee gaaw tàmbalee màgg 89 ñu jógee ci cadre boo xam ne 20 000 francs lañ doon fay location parce que ay étudiants ñoo ci nekkoon mais vingt mille francs yooyu ñu doon fay location tenez-vous bien dafa meloon ni daje budget dajale budget primature Sénégal wala budget euh, yeneen ñetti ministère wala ñeent ndax vingt mille francs yi jafe woon na lool waaye yàlla suñu borom ci ndimbalam ba ñu doxee ba tey jii nga xool tey boo doon jël électricité képp Hizbut Tarqiyyah mën a fay peut-être ci benn mois lu ëpp juróom-benn million ci ci ci ci électricité

léegi am nañu seen maîtrise ñii jóge nañu école normale ñii war nañ doon ay jàngalekat ñii ñu ngi nekk dans la vie active doonatuñu étudiant kon mënatul woon continuer doon daayira étudiant rek te tàmm nañu ci doxalinu daara ji loo xamante ne mënuñu koo bàyyi loolu moo indi les premiers affectés ñi nga xam dañ dañu leen envoyé ñu servir à l'intérieur du pays wala feneen ñoom tamit ñu commencé créer ay cellules yoo xam ne dañuy affilié à la direction du daïre des étudiants mourides parce que tout le monde est Tarqiyyah en 1992 sous les auspices de Cheikh Salih Mbake il y a un borom qui ay leeram ci le ci la turu Hizbut a am sëñ Saliou moo ko donc nous savons que 92 mais ba 95 le siège était à Dakar 95 ci la direction générale siège la direction générale à Touba ci est implanté diggante quatre-vingt-quinze ba tey jii nag mbooloo bi di dox activité yi di gën a yokk ci tënk soo doon tënk nag ne tey activité Hizbut Tarqiyyah ci lan ak lan lay yëngu dañ doo balaa ngay tudd dara da nga naan éducation éducation muy tàmbalee ci préscolaire dem jóge ci primaire secondaire ba tey ji fi ñu toll nii ñu léegi incha allah ñu war a boucler cycle secondaire bi ba on a commencé. a jeté les premières bases donc d'une université université nous ngi koy waajal taxawal boo xam ne ngir élèves yi ñu produire ñoom ñu bañ perdre li nga xam ne moom base bi nga xam ne am ci kon donc éducation moo ci jiitu ñoo ngi ci étude recherche am institut boo xam euh, les questions wala yeneen documents nous dina ko a formation professionnelle on a ay atelier yo xam ne corps de métier yëpp ñu ñu on est dans l'élevage, on est dans l'élevage. élevage ñoo ngi ci mbéyum ceeb bi ci euh, euh, dugub ji euh, donc le patrimoine la est yoonu administré au nom de la communauté communication parce que on a mis en place la première chaîne de télévision IP au Sénégal voire je dirais même en Afrique donc loolu it am na unité économique yi ñoo ngi liggéey ci domaine yu bëri yu wuute ñoo ngi ak benn mosquée muy lieu de culte boo xamante ne actuellement yàlla suñu borom dimbali nañu ba bokk na ci jàkk yi nga xam ne euh, boo duggee Touba di nga xam ne on am na un souci boo xam ne bu xóot ci xam-xam xam ne l'islam euh, ku daan wër lu rafet ci àdduna si ci dëkku islam nga daan dem da nga daan dem ci réew l'islam yi gis lu rafet tey jii architecture yooyu amoon ci réew yu mag yooyu moo xam Bagdad la wala nga dem Turquie wala nga dem Médine su Munawara architecture yooyu yëpp ñu ngi ci fi ñu toll nii. Euh,